maa ngi lay fay gannaaw bu ñu sant yàlla bu ñu si yonent bi di sant waa Medina yëpp mbooloo mi kontaan naa waa Medina waa Derkale Cité Marine. Grand Yoff waa Kër nag taxaw nañ si bu baax a baax maa ngi sant leen gërëm waaw. Malick bi nekk sa premier combat yow ak Abdou mu nekk xale boo xamante ne moom tamit dafa nekk si yoon lan moo tax nga jël combat bi. ak choix ardent ndax da nga ci benn combat bu métti sa diggante ak Jacoba sa diggante ak Jacob léegi après nga retourné waat jël ardo lan moo tax loolu non man maa ngi ci rek moo tax ma jël ardo quoi parce yu bëri mais ku la ku am lu la gën la am fi sës na ardo sosu fi ndax ñoom ñaar ñëpp dañoo yàgg bëggante ardo sosu fi de non non Ardo bëgguma ko Ardo sama booy la waroon bëri ay ñoom lakandaan dafa sëf ma doon jël ko man ni may bëree Ardo bëri ma doon jàmm rek. ñu ne pour Ardo. ñu seet Ardo. non mu ne sóoraale la. mu ne yow ak Diène Kaïré bu leen neexee ngeen ñëw bëre yéen ñaar sóoraale wu. non la rek mbër moom. waaw waaw waaw parce que dafa si man quoi wax ba guddi la rek la man kàddu nga ne manque d'adversaire moo tax nga jël ko Ardo manque na ñu gis macha allah non man du ma mën a nuyu kenn chaque jour on a entraînement lundi ba dimanche du ma mën a nuyu kenn man Zoss bu ko indi mu ma tax a jóg mais du ardo Zoss boo ko nee si ginnaawam ba jugee saa doon ba mu laay jëfandikoo leen daan ko mais ñu gis ñu gis dafa mel ni da nga xaw a wàññi poids. non entraînement yi métti rek man noonu dama noppal parce que combat bi gàddu yàgg na quoi janvier li ma doon bëri ñu profité rek waaw am nga xam li muy liggéey moo métti quoi liggéey bi dëgër quoi waaw. lan a. waaw ñu ngi woon nag autorité yëpp ñu ñoo jàpp si quoi. ñu mel ne ay ñoom Babou Babou Babou Ba ñoom ñoo jàpp si. jënd ticket ñu dem quoi ànd du mas quoi wala yàlla ànd loolu du mas man la non mas bu wóor la da ngay nekkal bu dëggal xale bu góor quoi na dëggal boppam. ñu gis sa combat bi passé. conseil bopp bokk na ci li yàq sa combat. bi da nga jël sa décision bopp wala da nga déglu conseil ba tey. non sans défense conseil bi si avant ngeen dugg ci digg géew bi la. da taxaw déglu li ñu la conseil nga jëfee ko wala yaa jël sa décision bopp ci digg géew. non bii moom seen xel daal libéré na quoi instant maa si des quoi gars yi bii man libéré na man kii boobu man day gis combat man mënoo bëre man da doo xeex loolu mënul ñàkk xeex balaa force képp ku bëre man day xeex loolu mënul ñàkk waaw sa combat bi passé waaw da nga yéex a dugg ci combat bi est-ce que sa combat ak Ardo nelaw yi nga doon nelaw ci Jacob doon nelaw ci non mais lamb la lamb moom sa combat doo xam fu mu ñëwee quoi mais bii moom inshallah day neex quoi parce que Ardo mu waxee moom dafa naa day dëgg boppam mu dëgg boppam combat bu yàgg combat bu gaaw la ñu ñëwee ñu gis sa combat bi passé da nga jóge ci défaite da bokk ci yaakaaru Médina yi bokk ci relève Médina moom nga jóge ci victoire ndax combat bi nga jëm du diis sa du diis sa combat du diis si man man dara du diis man man bàyyi faa laa ñun taal la seen bi waaw man dara du man li làmb la rek waaw ñu ngi taal di ko xaar incha allah. combat bi. ay xale ngeen kan mooy dirigé. waaw eh, man maa ngi dirigé si kàttanu yàlla bu dëgëlee ko ma ko. waaw waaw waaw day sóob rek seetal naa ay combat ma ay jël ñu ne daane quoi man damay ñëw mooy xam loolu. lan moo tax nga xeeb Ardo ci wax ji dafa mel ni da nga koo xaw a xeeb ci wax ji. man maa ngi entraînement boo bëggee dee nga xeeb man ma xeeb mbër entraînement wax ji quoi mu ko xeeboon ma entraîné ma entraînement boo bëggee xeeb ma xeeb ma dëgër boom ma duma ko daan ko. waaw. man ma faral góor yi ma faral ah, ah, ànd mu leen gën a dis wala mbër yéene ban différence la. waaw bi la seer soo ko balla ay kër Mansour ay day wax ànd rek ñàkk adversaire mën ma jël ko mais ñooy gën a tànn téeméer wax dëgg rek am lamb dëgg yàlla si gars yi gën a xam ne ànd ko laaj ànd mën a xamuñu ko suuf la boo xam te ni suuf ouvrable la. lu bëri arrêté national foo toll ci wàllu organisation organisation daanaka. waaw ñu ñu autorité yëpp ñu ngi jàpp bu ñu booyee ay ay kaat ñu ngi sàpp man moom pare naa bu yàgg laa xaar pare naa incha allah waaw. waaw waa Medina ko mbokk jël na wala ko waaw waaw bu ñu ma yàlla day jël wax dëgg yàlla yàlla ko yàlla gaay ñu quoi day jël man day jël day jël moom laay bëre quoi moom waaw waaw waaw waaw waaw affaire boppam nag yaa ma gën a xam. voilà moo xam ne loolu sax. yow yaa sa plateau lañ tax affaire waaw. am na ko mbokk séeréer